الزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن القائل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب والقائل أيضا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والقائل أيضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة أصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من العرب والعجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في القول لا منه ولا نعمي هو الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال محتهم فاق النبيين فاق النبيين في قلق وفي قلق ولم يدانه في عدل ولا كرم صلى الله عليه وسلم أصلي وأسلم على هذا النبي الأمي البشير النذير الذي جاءنا بالآيات والحكم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد mbokk yi gannaaw bi sant yàlla mi nga xam ne moo wax ci alquran ne man yàlla maa ngi ni invité ngeen ñëw ci kër boo xam ne jàmm rek moo fa ne wallahu yad'u ila daari salaam man yàlla maa ngi leen di woo ngeen bàyyi lépp loo xam ne du jàmm waaye ngeen ñëw ci jàmm man yàlla maa leen wax ci xadisul qudsi yu xadisul qudsi yi boo ko xamul moo ne moo nekk li diggante nekk ci xadis nabawi ak alquran alquran mooy numéro un waaye xadisul qudsi moom it mooy numéro 2 xadis nabawi su di ñëw yàlla wax na fa ne képp koo xam ne man aadaa li waliyan képp koo xam ne jël nga sama wali yu man yàlla ñi nga xam ne maa méngoo seen dër mi nga xam ne wax naa ne julli leen ñu julli oor leen ñu oor jàng leen alquran ñu jàng alquran bàyyi leen tere yi ñu bàyyi ko topp leen ndigal yi ñu topp ko yàlla ne ñooñu man yàlla man maa wax ne maay seen gardien man maa méngoo seen mbir ku leen laal man laal ku leen tooñ man ku ñu defanteel man lay yàlla mu ne ñooñu nag képp koo xam ne jël nga leen def leen ay ennemis yàlla mu ne man nga déclaré guerre man aadaa lii waliyyan faqad aazantuhu bil harb nga ne wax wali yàlla mooy kenn mu ne yàlla mooy ko am taqwa alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun alladina amanu wa kaanu yattaquun mu ne nag yërëb taqwa nit ki moo koy liggéeyal boppam saa soo liggéeyee nag ba am ko ba soo yërëb taqwa rek yàlla mu ne kooku boole naa ko ci ñi nga xam ne sincèrement man maa méngoo mbiram yàlla waxaat ci alquran ba léegi ne maa ngi wax ak jaamu yàlla yi nga xam ne ñooñu jàpp naa ne samay jaamu ah jàpp naa ne ay jaamu yàlla lañ. mu ne ñooñ ñooñu nga xam ne dañuy dox ci suuf waaye duñu yàqu yamshuuna alal ardi hawnan mooy alquran moo ko firi ñi nga ne duñ dox di yàq ci suuf waaye dox bu dal bu teey lañuy dal waaye waxtu wuñ def waxtu wuñ doxee sax ba benn innocent bu xamul dara bëgg a xuloo ñoom seen tontu mooy mooy jàmm rek xaalu salaam maanaam ñi nga ne luñ tontu bàyyi sa xel ci jàngale ñuy julli di sang ñuy julli di sëlmal ci sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom rek la yàlla wax ne laqad kaana lakum laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad kaana lakum laqad kaana lakum xoolal xoolal discours bi yàlla li mu wax laqad kaana lakum lakum yéen yàlla mooy yéen samay jaam exemple bi gën a leer bi gën a rafet bi gën a mag ki ngeen war a jël def ko exemplaire di wax ay waxam di ne waaye mooy kan mu ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu ne fekkee da ngeen a bëgg a roy kaay ku ngeen di roy ci wax am ngeen ko mooy yonent bi mu ne su fekkee dafa am ku ngeen bëgg a roy ci ni mu doon solo am ngeen ko taarix jàngale na ko su fekkee dafa am ku ngeen bëgg a roy ci jikko ne leen am kenn koo xam ne fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana seen exemple bi gën a rafet seen modèle bi gën a baax ngeen war koo roy mooy kan mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxir wa dakara llaha kathiran kon ba léegi alquran mi ngi lay wax kan mooy sa royukaay yow kan mooy sa royukaay borom kersa googu kan mooy borom kersa gi sallallahu alayhi wa sallam est ce que duñ ko roy ci kersa gi mu amoon. est-ce gis ngeen ni sallallahu alayhi wasallam taarix siiri ni ko jàngalee mu ne yonent bi mi ngi mel ni jànq boo xam ne séyagul ci kersa gi ci rus maanaam rus naa wax lii sallallahu alayhi wasallam rus naa dem fii sallallahu alayhi wasallam rus naa jëflanteeg ñii moo tax ah jàngale alquran jàngale islam suñ ko bàyyee rek fitna taxaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen xam ne yonent bi ne na ngeen xam ne. problème yi ngeen di jànkuwanteeg yëpp li ko waral mooy bakkaar yu bëri rek nee na du kenn de nee na yëpp tamit nee na dama bëgg wax ak yéen ngeen comprendre bu leen ko jiñ kenn bàyyi nga ñaan ñaanatuñ ñu seetlu ni bëreetuñ fi mu ne nii yu bëri yéen bi nee na su boobaa rek da ngeen gis ay mbir yoo xam ne da ngeen ko tumal ku ne fekk seytaane la def leen ci yàlla déglu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee su ngeen demee ba négliger sama alquran su ma ne bu leen jaay wàññi ngeen jaay wàññi génn leen asaka ngeen bañ wàññi leen njaaloo ngeen bañ sàngara si bëri mu ne su boobaa da dana am lu ngeen gis du sama waxee lam yanzilil balaa illa bi dam yontu bi nee na lam yanzil du wàcc al balaa nattu illa bi dam bi lu may bakkaar yu bëri ñu ne ko boobaa su ko lu may rek mu ne wala yarfau illa tawba nee na tuub rek dellu ci yàlla tuub rek dellu ci yàlla nee na mooy yi bëy kenn ku ne amatoo kers amatuma kersa wax lii amatuma kersa dem fii amatuma kersa naan lii loolu yëpp suñ demee ba dund bi dund bi nax nañ delluwaat ci jàngale bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi waxoon nañu ko bu yàgg ne na saa su ngeen gisee ngeen tiit mais ni ñu nit ñi dañoo mel ñu xabtalu fi ne nii am nañu am nañu xabtalu di saaga sëriñ si barki démb dégg nañ ko fi am na ñu xabtalu jël ay royukaay yoo xam ne duñu référence am na ñu xabtalu di wax yoo xam ne waruñu koo wax ñetti at yi façon bëggoon bu ne rek yàlla bëggoon nañu ko waaye ñu tiit ko nit ñi rek fekk yàlla ñu tiit ne du nit ñi seen bàkkaar yi moo ñu koy lekk téyeguñ ko am na ñoo xam ne ñetti at yi ñàkk nañ seen liggéey ñii ñàkk nañ seen bakkan ñii ñii ñàkk nañ seen xam-xam économique bi daanu léegi ñu ngi koy wax ci discours bi nee na lan yu bëri rek balaa natt du am mukk lu may bàkkaar yu bëri wala yarfaahu illa tawba ah ñu ngeen koy ji ñëpp dara seytaane moom mooy ñëw dominer leen di jëf ci ñoom di wax ci ñoom ah yàlla mu ne ñi ma ñi àttekat yi mënuñ dara yàlla ko wax nee na xayrul xaakimin mooy man yàlla nee na ki dàq àtte mooy man nee na àttekat li ñuy wax dara du ci dëgg déglu leen ma man yàlla te ku àtteewul nag sama àtte rek xamal ne yaay tooñkat yaay passif yaa gën topp wa man lam yaxkum bimaa anzalallah yàgg nañ ko alquran wa man lam yaxkum bimaa anzalallah xew-xew ne day xew ñu ne waa sëriñ si lu tax waxuñu sëriñ si mënuñoo wax parce que sëriñ si alquran la ñuy waxee te àtte bi du àtte alquran alquran moom àtteem ci digg bi rek amul nii amul naa alquran yéen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ni ci islam. ne leen nit dana njaaloo ci làmmiñam ñu ne ko ci naka mu ne muy wax wax yooyu rek wax yooyu ngeen xam rek mu ne nit dana njaaloo ci tànkam ñu ne ko wax yooyu yonent bi nit naka la mën a njaaloo ci tànkam nag mu ne bu jógee dem rek moom xam na fi mu jëm xam na ki muy seeti xam na intention bi moom foofu mu ne aussi nit dana njaaloo ci bëtam ñu ne ko mais yonent bi nit bët ni muy ñaawale mu ne xool yi rek bi ngay xool ñu ne ko après mu ne mu ne mu ne cërëm yi nag ah mooy dëggal wala mooy fenloo xam nga ñi wax naan sëriñ si nañ wax bu ñu waxoon day kon islam moom li mu wax mooy azani wa zaniyatu fajlidu kulla waahidin minhumaa mi'ata jalda la koy bëgg a dégg loolu mooy atte islam islam ne la ñaarookat bu góor ak bu jigéen li war ci ñoom mooy ñu dóor leen téeméeri yar su fekkee góor gi ma sam jabar su ma sam jabar nag jàpp rek daw jëm atte bi moo ko gën a woyof parce que bële day xaw a tàng bële bu mu appliqué wu rek problème am bële dafay tàng parce que islam wax na la ne la kenn ci yéen bu méngoo mbiri jullit ñi wala sax bu méngoo ay bakkan wala ñuy roy ci moom mu ne kooku nekkatul kenn porte xutba la ñu wax xutba ñaar nit ñett sax bu ñu la toppee yontu mu ne ah bàyyi sa xel de parce que waali nga waali ku méngoo dara. ku méngoo ku méngoo dara nag bu defee dara bu waxee dara boobu teg qu'importe moo tax islam moo lay orienté islam ne la li xew jàngee ci dara yow mu ne da nga nekk yi xew nag da la waar bu ndaw nit ñi waaroo ci yow yow waaroo ci nit ñi ah fii laa jëm lii laa bëgg a nekk lii moom war lii warul ah lii moom war lii warul aussi yonent bi nee na la nit ñi lenn rek mooy mën muccal moo ñu yéene te jàmm nekk jàmm rek waaye kii mi ngi menacé kii kii mi ngi menacé kii danaa la wàccee danaa la tëj kii mi naan ko doo yéeg danaa la tëj nit ñi di menacé seytaane di leen jax-jaxal ñuy menacé seen biir islam na ne génn leen ci jikko yooyu yéenaate leen jàmm rek parce que yéen a ngi lor nit ñi islam na ne kenn ku ne ci yéen su defee li li ko war fooy bi ma ko tëral bu ci jaaroon problème yi yëpp mën na cee ñàkkatu ah problème yi yëpp mën na cee ñàkk dugg islam ne na ana kerse gi nekkoon ci bi sallallahu alayhi wasallam ana kerse gi benn waaye dafa ñëw ci kër buur bi sàcc xaalis bu bëree bëri dem tabax kër génn àll moom yëpp dem tabax kër bi mu tabaxee kër sàcc ñëw dugg fa fekk buur bi déclaré na ko gaa yi koy wër gaa yi koy wër mu mu woon wàllu au plus ne ñëw leen sàcc ngi sama kër ñëw na ko yow la ñu seet mu ne ah, ñu ne ñu seet mu ne ah, ñu def mu ne ñaar teg ñaar yëpp rek ah ah ànd bàyyi wala ànd wala moo tax ñoom yi ñuy jàngal nii seen faux yi war nañ koo respecté jumaa ji di ma autorisation wal muminaati suma lam yatubu fa lahum azaabu jahannam yàllaa ko wax nee na ñi nga xam ne fitnaal na nit ñi ci rey leen yàqal leen seen liggéey yi xale yi mënuñoo jàng ñu perturbé réew mi perturbé nit ñi perturbé sëriñ si stress la woon nit ñi yàlla mën na ñoon du ñu ci de ah ñoon du ñu rëcc de moom ah, il faut ñu ci alxuraan ba léegi mu jàngal ñu nañu kenn ku ne kenn ku ne yàlla ne kenn li nga def noonu laa la jox ñaar bi moo tax nit ñi dañoo war a baax di def lu baax di wax lu baax yéenaante lu baax loolu mooy sa xol ak sa xel pour sama intention mooy leen naa toroxal ci dara de inna allah yàlla leen xam naa ko bu fekkee dañoo làqatu yéeg avion sax ne li ñu def ci kaw na naa ko inna allaha la yafaalu shay fi l ardi wala bi sama wala bi sama mu gën a taral moom yàlla mu gën a taral mbugalam ba léegi ci ñi nga xam ne ñu ngi dressé nit mu ne ci dàgg yonent bi sallallahu alayhi mu ne yàlla yonent bi ne mbindeef yi mbindeef yi ñooy ñëwaat ci ki gën ci yéen mooy ki gën ci ñoom ah? ki gën ci yéen mooy ki gën ci mbindeef yi ki gën ci mbindeef yi mooy koo xam ne tegu leen problème oyofal la ci ñoom oyofal yàlla ne la yërëm leen ñu ne ci suuf ki ne ci kaw yërëm leen yërëm leen ki ne ci suuf ki ne ci kaw yërëm leen parce que démb rek gis naa benn jigéen ku ëmb ñu taxawloo ko ba ba tànk yi kott muy lu daw yaram mën naa la yërmaane mën naa la yërmaane gis naa jigéen ku ëmb ñu taxawloo ko ba yi kot ñu soog di ko jox mu toog mu ne xoolal xoolal mbugal yi xoolal nit ñi mbugalee peuple bi aussi sax te jotu conséquences yooyu yëpp ñu ne ay intellectuels ñoo koy def ah est-ce que duñ bàyyi suñu xel ci àdduna Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yërëm leen yërëm leen ñu ne ci suuf ñu ne ci kaw yërëm leen ki ñu ci kaw mooy yàlla ñu jàng ba léegi islam di la wax ne la fekk yéen a ngi tëkkuwante seen biir yéen a ngi tëkkuwante yàlla mu ne man génn naa ci. islam mu ne toujours maa ngi maa ngi déglu ki nga xam ne mi ngi defee xel mi ngi defee xol dafa am benn saxaaba benn waay ñëw fekk ko mu toog yonent bi salaay salaam mu di ko menace di ko di ko saag bi di ko tontu di ko jëlal paa yonent bi waaye waa ji xamut tontoo rek yonent bi daal di jóg daal di dem waa ji dem yonent bi ne ko sang bi gis naa lu ma jaaxal parce que. waa ji ñëw na di ma menacé di ma tiital i ma saaga ma noppi mais bi ma tontoo rek da laa jóg mu ne ko waaw parce que bi nga noppee jàpp sa ñàmbur boobu malaaka yi ñu ngi lay tontu ñu ngi lay défendre waaye bi nga waxee rek seytaan yi commencé naa dugg te sincèrement man du ma toog ak seytaan loolu tax ma dem bàyyi xoolal ci mawaaqif yu bëree bëree bëri bëri yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi lay jàngal siira ci taarix nga ne ma li ma man mooy koo xam ne yaa ngi dégg du tontu te lu indi biir yi biir yi baaxul biir yi baaxul te ku yàlla nar a dimbale dëgg dëgg dëgg dañ def ci jikko jikko jéggale ak jëllale innama al umamul axlaaqu ma baqiyat fa inhum dahabu axlaaquhum dahabu nit ñi seen jikko yi rek moo leen bàyyi yooyu axlaaq yooyu islam bi ñu léegi nag yére boobu ñun lañ bëgg a sumi sol beneen yére yére lan bi digi jàmbur yére mars yére dóorante yére tuumalante yéen def lu la neex yéen force forcément yéen ñàkk yéen boo xam ne ñàkk sàmm kàddu lu ma neex ma def yéen ma am doole yéen yooyu yëpp islam na benn baaxu parce que problème rek la lay indil di moom wax ngeen di jëfandikoo aaya bi mooy afallahu amma salaf afallahu amma salaf bu ñu ko def rek du baax yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ko gars yi li bàkkaar bàkkaar nag maa ngi wax ak yow afallahu amma salaf man yàlla damay jéggale li passé benn erreur kenn ci topp rek saaba yi ñaata bàkkaar lañ ah nit compagnie bi toppoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaata bàkkaar lañ def ñu dem ba ci yàgg yàlla yonent bi ne ko afallahu amma salaf ah bu leen ko jàppee ah ñu ñëw nag euh, rëccu affaire bi jeex li jeex jeexal islam ne la afallahu amma salafa li ma lay wax aaya la bu ne ci alquran afallahu amma salafa islam moo ñuy jàngal naka lañ mën a dundee nekk ci jàmm mais problème boo xam ne trois ans quatre ans ñu nekk ci kese ñu nekk ci di continuer islam ne la man def doxewuma noonu doxewuma tamit ci koo xam ne day ñëw naan leen li passé laa leen bëgg réparer islam ne la man doxewuma noonu islam ne la li passé dañ ko bàyyi dañoo bëgg koo xam ne day ñëw avancé ci kanam problème yi li li ñu ko jural mooy abdallah almasalafa bii discours bii gars yi ko bàyyi gannaaw dañu war bëti ay ah maay ñëw seen àll ci sàcc yi may di leen ko ngeen gëm ko islam na ne man waxuma loolu waxuma la nga la wax nga xool ci kanam soxlawuñ loolu ñun Sénégal soxlawuñ loolu borom respect koo xam ne du gestu ci kanam lay xool parce que yàlla nee na wa in tatawallaw yastabdil qawman xayrakum summa laa yakunu amsaalakum nee na lu ngeen perte rek dinaa indi leneen loo xam ne moo ko gën maa nansax min aayatin aw nusiha naati bi xayrin aw mislihaa alam taalam anna Allaha alaa kulli shay'in qadiir est ne yàlla am na kàttan boobu lu ngeen perte rek mooy alquran bi lañ soxla ah alquran alquran mu ne wallahu yadu ila dar islam dañoo bëgg koo xam ne daf ñu invité ci jàmm pour suñu xale yi suñu njaboot yi suñu papa yi bañ a am na ñu bëri ñoo xam ne tey rek ñu tiire sax ñi téye te tiit moo ko stress bi semaine bi luy xew am na ñu jënd ay ndugg di ko bàyyi seen kër yi ci lan réew moo xam ne réew yi jàmm la xanaa Abdou Diouf rek roy kaay la nga ne damaa jotee Mauritanie dóoral dóoral mu ne ay booba suma dóoral mu ne ay booba suma dóoral mu ne ku sës ci man ba événement bi jeexee mu ne am na mu ma jaaxal parce que bi ma jotee naar yi fii ci Nouakchott am na ku sës ci man koo xam ne conseil laa ko defoon mu ngi naan ma dóoral dóoral dóoral ma ne teg ngay jàng personnalité ci diplomatie ci Abdou Diouf mu ne ay booba gannaaw bi mbir yi passé mu ne ah kon waa ji mu ne ay booba suma dóoral ki daan la xeexal bëggu la bàyyi ki daan la xeexal dóoral histoire waxal xulool yooyu yëpp personnalité war na ko dépassé jël lan jël wallahu yadu ila daari salaam ah yàlla wax na ci alquran ne lahu daawatul xaq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ غباء وما هو ببالغ منه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ها وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ñi nga xam ne dañoo wéeti am iman nekk ci seen xol nee na yi leen di oo ay réer kese la ay dalal kese la islam nag nga ne mënuma jàpp sa loxo bi de li ma mën mooy wax la kese ah li ma mooy li ma mën mooy tabliir moo tax yàlla waxul salaam ne ko lasta alayhim bi musaytirin mënoo dugg ci kër ku nekk di ko orienté mais lan moo la war mu ne ko maa la rasulal balaax li la war mooy nga wax ne yàlla mu ne nag walaqad wasalna lahum alqawla laallahum yatadakkaruna fexe naa ba ngeen dégg information bi peut-être ñu fàttaliku peut-être ñu fàttaliku ñu fàttaliku lan yonent bi mu ne réew mi jàmm la soxla réew mi waxtaan la soxla réew mi dal la soxla réew mi ñaan la soxla réew mi tuub la soxla bàkkaar yi ñu saf yi ñoo bëri rabbi gëm nañu ne barke am na te ñu ngi koy sax ya allahu ya rabbi yaa wax ci alquran ne inna allaha la yuxayiru ni'matan an'ama ala qawmin hatta yuxayiru ma bi anfusihim amul benn sikki sàkka ne xéewal am na ci Sénégal ya allahu ya rabbi yàlla bu ñu changé te yàlla boo changé ya allahu ya rabbi ñu lay ñaan ci barke néegi yàlla bii di óolu ne danga dama suñ ñaan Sénégal a ngi nii la hawla wala quwwata lana amul doole amul kattan ci li nga xam ne ñun ñu koy menacé yaa Allaahu yaa rabbi loolu yëpp sa doole sa kattan mën naa ñëw jañ ko yaa Allaahu yaa rabbi yàlla ko jañ yaa Allaahu yaa rabbi ñu ngi def li Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax gëm nañ ne yi xew yëpp la mooy dugg ci di jax-jaxal ci biir te wax nga ne seytaane bu ñu dominé nag bàkkaar yi ñëw bàkkaar yi bu ñëwee balaa moo ci topp te balaa yi dara du ko yëkkati lu may tuub yaa yaa rabbi ñu ngi yëkkati loxo tuub di di wax ne tubna ila allah wa rajana ila allah wa nadimna ala ma faalna wa alzamna an la nauda ila dibin abadan ya allah ya rabbi yàlla nga ne musuñ tuub ndax yaa ne fa man taaba taaba allahu alayhi yàlla ku ne bëri yërmaane la na ku a ya allah ya rabbi ah, balaa yi dara lu may bàkkaar yu ngi tuub ya allah ya rabbi yàlla nga ne musuñ tuub ya allah ya rabbi ñu ngi lay ñaan yàlla nga def Sénégal yi ñuy dajee fekk li ne ci mer ak manière yàlla ko génne sànni fële yàlla nekk ay kuréel yoo xam ne ixwaanan ala sururin mutaqabilin ya allah ya rabbi ñu ngi lay ñaan suñ mboolem réseau yi ci Sénégal ak suñuy frontière yàlla nga fa ya allah ya rabbi suñ population yàlla nga def ci ñoom bëggante yàlla nga def ci ya allah ya rabbi yàlla nga arrêté taal ak tàkkal ci ya allah ya rabbi ah wax na ci alquran bardan wa salaaman ala ibrahima yàlla nga def bardan wa salaaman ala yàlla yaa rabbi suñu njiit yàlla nga delloo si seen xel yàlla yaa rabbi yàlla leen may conscience tranquille yàlla yàlla xam ne mbir mi dono la da ko fekk ci jàmm da ko war a bàyyi ci jàmm ki koy jël da ko war a jël ci jàmm yàlla yaa rabbi yàlla ñu defal jàmm jooju muy jaar suñu diggante yàlla bu ñu joxante ci hay yàlla yaa rabbi euh, Sénégal yi ngi ni teral nga ko teranga boobu yàlla boo ko dindi ci sa tag yàlla yaa rabbi ñu ngi lay ñaan yàlla nga barke suñu réew mi Sénégal yàlla yaa bi ñu ngi lay ñaan nawet yaa ko am yaa ko moom yàlla may dox moo xam ne bu ñëwee dafay indi jàmm daf ñuy fekk ci jàmm waaye ñi ñuy génnee jàmm lay nekk yàlla yaa rabbi ñu ngi lay wax na la ah Sénégal ak nii képp ku yéene jàmm yàlla ko may jàmm képp ku yéene leneen lu jàmm lam yéene yàlla ko dindi te bu ci am ndam yàlla yaa rabbi képp koo xam ne yaa ngi la réseau réseau boo xam ne day yàq wala muy yàqal yàlla nga coupé réseau boobu yàlla yaa rabbi yàlla ñu dimbale yàlla ñu may xitaabu misk am nga ko man nga ko ci barka àjjuma ji wax nañu àjjuma yi nag ñaara surtout imam di toogee na ngeen ñaan yàlla te wóolu yàlla dana ko nangu الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب درجة رفيعة له الفضيلة أمرنا أمرا بدا في بنفسي فسلنا بالملائكة قدسي وسلس بالمؤمنين من جني وإنسي وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم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 فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين غفرانك ربنا واليك المصير غفرانك ربنا واليك المصير غفرانك ربنا واليك المصير اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يشفو خيرك واكشف عنا من البلاء ما لا يشفو خيرك واكشف عنا من البلاء ما لا يشق غيرك اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال وانصر حكومتها ورئيسها وشعبها واكمل لنا المشاريع بايدينا يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من لدنك رحمه واهلنا من امرنا رشدا واهلنا من امرنا رشدا واهلنا من امرنا رشدا بركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق القدر والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام في الدنيا والسلام في الاخره والسلام في بلدنا السنغال والسلام في بلدنا السنغال والسلام يا سلام والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين والسلام